maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp ci teewaay li ñu fi tax a taxaw nag du lenn fii suñ dëkkuwaay la ñu ñëpp bon amuñ benn infrastructure boo xamante ne ci côté sanitaire wala épanouissement des jeunes ñu morcelé teef terrain yëpp jaay amul benn espace bu ñu dese bu dul bii ñu buggoon nag ku ñu dimbale te yàlla rek tax ñu bàyyi ñu fi espace bi suñu jeunes yi am fu ñuy épanouir rek bàyyi ñu suñu espace bi ñu am fi benn foo xamante ne mën nañ fi def santé parce que man fa ma déggoon ñuy wax ne foofu lañ bëgg poste de santé foofu c'est en dehors de notre quartier déplacement bi yoon kon li nga xamante ne moom mooy dëgg tey yoon fii ay nit ñoo fi nekkoon di fi daan seen doole ñu jëlee leen fi kon bu ñu demee bu da ko joxe waat war nañoo xool leneen nu ñu koy joxe mais pas di ko jaay man dama ragal ne sax dañuy war a dem fenn foo xamante ne ci réew mi dañu nar a dem foo xamante ne ku amul doole rek yow bokkuloo te ça ça ne doit pas se passer comme ça ñun ñëpp bokk réew ku nekk am nga ci cër. lii ñu fi dese nag na ñu dimbali ngir yàlla ak yonent bi ñu bàyyil ñu ko fi ñu ñu am fu ñuy fajoo suñ doom yi am fu ñuy jànge suñuy rakk am fu ñuy fubale mais fu ñu wax ne foofu lañ ñu bëgg a yóbbu foofu san nag arrangé wuñu arrangé wuñu maa ngi jégalu nag. salaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mu fi teew yëpp. waaw di nuyu jeunesse su Daaru Salaam di suñ grand frère yi fi nekk ak suñ booy yi ak ñi nga xam ne ñu ak ñoom ay moroom lañ man nag maa ngi tudd Pambay je suis le secrétaire général de l'ASC Daaru Salaam may wax ci liñ gis fii nii ndax bu ñu rappelé woo fii benn at la tolloo ñaari at ba Mariama Sarr ñëwee fii ñuy wax ne dañuy yëkkati mécaniciens yi nekkoon fii nii ci mécaniciens yi fi newoon ak ñeneen ñi am na ñoo xam ne ay pere de famille lañ ñii suñuy grand frère lañ ñii suñuy pere lañ fii lañ newoon di suturlu pour ñun luñ dundee si suñ quartier mais tamit ñu nangu leen ne leen da ngeen di jóg fi ngeen nekk placé wul baaxul ndax dañ ko war a aménager defar ko benn jardin public bu mag fi nga xam ne comme Daaru Salaam ci entre Kaolack la ne kuy dugg ci Kaolack nga gis taaruwaayu Kaolack ni mu mel ñu dindi polition bi ñuy wax ci quartier bi ak yeneen ak yeneen ñu yëkkati leen fii mais soo imaginer même pas un ñu ne ñii ay titre foncier lañ am ay bail kan moo leen ko délibéré ci même pas un an ñu yëkkati ñi nga xam ne ay doomu gox bi lañ juddoo fi yaroo fi di fi teddee pour dimbal seen i njaboot nga yóbbu leen ci toroxal leen ba pare jël ko jox ko ay borom doole ñu dem uti ay baay boo xoolee ci ñoom kenn ku la ci génneel baayam baay bi da ngay gis ne la dañ naan la am na baay depuis deux mille wala ay deux mille mille neuf cent nangam nga xam ne loolu kon logigul ko am baay am titre foncier xanaa état du ko rabaske te ay ah mécanicien fi newoon ñu rabaske leen ñoom ñëpp jox ko ay borom doole kenn xamul nuñ def ba am ay baay soo xoolee jëlee ko fii ba sëcc ci ba lépp dagg nañ ko ko ñiy jël ko ñiy jël ko quartier bàyyi nii ñu ne la nouveau quartier bu bees la moo xoolee moo gën a populaire ci abattoir nangaan soo demee ci kayit ñu ne la daaru euh, nangaan extension amul poste de santé boo feebaree da ngay dem ba poste de nangaan ba amul assainissement bu nawet bi jotee dañuy xuus wala ñu génn gas ah amul hôpital amul case des tout-petits amul foyer benn terrain bi yee fi nekk sax boo dof dof loo léegi ñu ne dagg nañ ko jël ko quartier bi amul benn espace public amul dara lépp gars yi jaay nañ ñu doole jël ko ndax dañoo toll ci dimension boo xam ne ku amul doole rek ci réew mi bokkoo dañ lay néewal doole ñu am suñ benn morom suñ benn ami ñu nekk suñu ami d'enfance yàlla kat dimbali ñu moom mu am bara boo xam ne yegg na foo xam ne ñun yegguñ fa mu ñëw créer benn mouvement am muy mouvement des jeunes leaders de Kaolack ne man de Daaru Salaam laa dëkk damaa bëgg ñu ñëw àndandoo joxe loxo pour soqali suñ gox mu nekk loo xam ne tamit lu rafet la ndax ñun bëggoon nañ ko bu yàgg amaan amaana suñ mën-mën àgguloon tey fuñ mën a jëli jël journaliste ñu ñëw ñu kaas ñu def ko ci journal soo demee ci ginnaaw garage Nioro ba da ngay gis ne même seen matière yëpp seen toilette amul fosse amul dara matière yëpp ci koñ bi lay dégagé wu muy loo xam ne baaxul sax ci ñun ñu koy noonu mu mun ñoo jox yenn jàngoro yi tey fii ñun ñu ñëpp a fi dëkk amul kenn ku fi ragal kenn wala kenn ku fi ragal dañoo war a waxante dëgg su la nit kiy mere mu mere la su lay jàpp mu jàpp la bu dëgg jotee dañ koy wax amul complexe kenn ku ñu mere ci lii ñu xam ne kat dañoo mere ci dëgg bii la ñu meree mooy lan mooy dañuy jóg pour xeexal suñ gox boo nekkee jeune nekk ci quartier da nga fi war a nekk pour sa quartier mais pas pour yow sa intérêt personnel ndax intérêt personnel baaxul ci réew boo xoolee mooy delloo ginnaaw toujours suñ gox bii nii ndax am na ñoo xam ne ñu suñ gox bii ñu ne leen ay njiit lañ mais tamit da xam ne ñii motuñ leen njiit ndax njiit mooy kii kaasal ay ndawu quartier njiit mooy say ndawu quartier seen bët buñ xonqee nga taxaw kaas ko fompal leen seen i rongoñ mais bu jamee demee ba ci benn dimension boo xam ne suñ leen di néewal doole sax seen njiit yi dañuy bokk ci ñu leen di teg loxo pour ñu néewal leen doole mu nekk benn amalgame boo xam ne metti nañu trop moo tax tey ba suñ copain Jules taxawalee mouvement bi ñu ne ko ñun ñëpp dañ ci ànd xeex ci ba ku ñu ci mën a fekk dimbale ñu ci xeex bi fekk ñu ci wala ñu xeex ba fuñ xam ne ñun suñ doole fii la jeexal nañ Sénégal yëpp xam ne waa quartier Daaru Salaam nangaan xeex nañ ba seen xeex jeex ñuy ñaan ndax ñun tey espace bii nii kese lañ dese ci côté géej gi foo xam ne positionné wu na pour nga am fi hôpital wala nga am fi case des tout petits wala foyer des femmes ah wala nga am fi terrain football mais tey boo jëlee loolu nga ne da ngay dem ba màndi naar ca ginnaaw côté Kuyong nga ne da nga def foofu noonu foo xam ne amul yoon nawet noor gi nekk nii sax pour nga dem fa dafa jafe. nga ne da nga fay am naa fa réserve espace comme ni ko délégué de quartier bi waxee munoo gis fi nga xam ne moo baax ci sa quartier nga ne borom doole yi kaay leen ko jël man ma jël fu bon fi fu foofu nan lañ koy defaree ak ban moyen lañ muy loo xam ne tamit métti nañu trop ba ci kanamu yàlla di wax ne état Sénégal président Macky Sall ñu ngi jëm ci élection 2024 te suñ quartier bii na bi nekk na quartier boo xam ne quartier bu populaire la soo demee ci centre nangaan bi nga xam ne bokk na ci ñetti centre yi gën a rëy ci Kaolack électeurs yëpp presque Daaru Salaam fii la ñuy yeewoo ñun it dootuñ nangooti kenn benn homme politique toog ba élection jote nga ñëw fii nii naan du juróomi téeméer saaku ceeb bureau diwlin ñu dem vooteel la déedéet dafa am loo xam ne c'est inacceptable kenn waru koo nangu doomu aadama sa carte ren nga am sa carte mooy sa boo ko jaayee mooy jaay nga sa ngor ñun dañoo taxaw képp képp ku ànd ak ñun si suñu xeex bii ñu ànd ak yow dimbali la ku ànd ak ñun suñu xeex bii su élection jotee ñu war la ne ñun ñii ànd ñoo ak yow ndax ba ñuy xeex pour suñ kàcce dag ñoo contrôle maa ngi nuyuwaat ñëpp di remercier waat ñi fi teew ñëpp xam ne lii mooy dëgg de ku ci ñëw ñëw nga ci dëgg ku ci ñëw li ñëwoo ci dëgg ndax ñun combat bi lañ am te duñ mus a bàyyi dañ koy xeex ba ñëpp dégg ñu bañ yàlla may ñu ci ndam wasalaam. maa ngi leen di nuyu ku si nekk turam ak santam bon lenn moo ñu fi indi tey mooy suñu gox moo ñu fi indi tey di défendre suñu gox loolu moo ñu fi taxa ñëw ñun ñëpp muy lenn loo xam ne dañoo xam espace yoo xam ne fii nii tey jii nii dañuy toog ba ay guddi di gis ay nit di dugg si biir di samp ay poto te xamuñ nan nan la ak naka la. te loolu loolu lañ bëgg a xam lan moo ko war a firndeel am na espace yoo xam ne desoon nañ fi yëpp jaay nañ leen di ko commencé station Total bi jëm ba Pont Noiraux amatul espace espace bi nekk yëpp jaay nañ leen te ñu koy jaay dañuy jaay doole te ñun ñu nekk ay jeunes yoo xam ne ñu ngi si koñ bi amuñ ñenn ñu ñu di war a dimbale ñu ñu war a dimbale si koñ bi ñoo ñu ñooy bokk si lobby boobu noonu di jaay quartier bi te loolu du yoon ñun amuñ benn poste de santé suñ koñ. amuñ benn terrain football suñ koñ benn terrain moo fi am te terrain bi ñoo ko créé te création bi benn jour la man maa jël sama samay décision aux jeunes yi comme ñu ngi sama gànnaaw ma ñëw ut ay pono defar terrain bi tey kon déjà su ma toogee sama gàlle ba ay xaaji guddi gis ay 4 x di dugg di génn ñuy samp ay poto kon affaire daf may jaaxal loolu nag moo nekk loo xam ne tey jii nii ñun moom la ñuy xeex te ñun amuñ lenn lu mooy suñu quartier suñu quartier jaa ku ñu fi jàppale da ñu war a jàppale ku ñu mënuñu jàppale ñun mënuñu ànd ak yow te élection su jotee fii amul ku fi ñëwut wax ak ñun mais problème bi mooy élection day jot ñu ñëw dañuy jéem a nax te ñun nekkatuñ ay xale ba ñuy nax. fu mu ne nii dañoo volontaire amul kenn ku ñu mun a téye te xeex bi combat bi au début nii lii message la rek mais ñu ngi bàyyiwuñ nag dañuy dem ba ba waaw loolu daal laa amul lu ma wax. asalaamaaleykum mbooloo bi nuyu naa ñëpp. di ziar di kontaan si daje biñ fi daje di naxarlu tamit li tax ñi daje fi parce que liñ bëggoon suñ ko kii nii amoon xëy na daje bi ni du am mais liñ bëgg lañ amul moo tax daje bii am kontaan naa ci daje bi parce que bu ñu ootee ñi nga xamante ne ñooy volonté wu pour seen quartier ñëpp génn si nañ ñëw taxaw loolu kontaante la mais naxar bi mooy lan mooy liñ bëgg lañ amul moo tax ñu dajee fi tey heure bi waroon na fekk ku nekk nga nekk ci say yeneen yitte sa yitey bopp mais loolu mënul am parce que daa am loo xamante ne dañu koo def te neexuñu te dañoo war a taxaw kaas ko bañ xam ne li ñu def neexuñu dañoo war a kaas bañ xam ne li ñuy def neexuñu li ñu def mooy lan mooy li ñuy def suñ quartier quartier bi ñun ñoo fi dëkk ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw di dagg ay parcelles fii nii di ko tabax ay station di tabax ay magasin kenn du fi yeewoo ci ñoom kenn dëkku fi kenn dëkku fi fii ay nit ñoo fi newoon di fi suturlu di fi faj seen i soxla di ci dundal seen i njaboot ci liñ fiy am ñu fekk leen fi jëlee leen fi ne lan Macky Sall dafee jaar di dem xaw ma poroxaan xaw ma fan ne daa war fii ku fi jaar da ngaa war di gis géej gi ñu naxee loolu nit ñi fi nekkoon yëkkati leen fi yóbbu leen ñooñu instant bi ñu ngi tasaaroo ci biir koñ bi kenn mënu laa wax ne am naa fi place bu baax instant bi ni nawet su jotee ñooñu pour ñu liggéey problème lay doon ci rabooru tali bi la ñuy tëdd loolu danger la parce que fi ñu nekk oto mënu faa dugg nawet oto mënu faa dugg nawet te mënuñoo toog bañ a liggéey parce que li ñuy liggéey ci loolu la ñuy dundalee seen i njaboot fii lañ ñëwoon di fi suturloo ñu ñëw fekk leen fi jëlee leen fi biñ leen fi jëlee tamit ba tey kenn waxul kenn lu leer foo xamante ne mun ngaa wax ne fii lañ ni yóbbu lu ñun nag lu ñuy kaas mooy lenn suñ quartier fii nii dañ fee bëgg hôpital bu baax bëgg fi école waaw te fuñ ko bëgg mooy fii ci kaw bi fii ndax ñun si koñ bi lañ dëkk ah mënuñoo am espace yu baax mun mënuñoo am espace yi baax ñeneen ñoo xam ne dëkkuñ ci koñ bi ñëw jaay ñu doole indi xaalis ñu jox leen ko ñun ñu ñuy jox réserve foo xamante ne dalay leer ne foofu suñuy sët ñuy fekkee pare hôpital boobu ak école ndax liñ fa war a financer pour defar ko c'est toro dafay bëri te foofu ñun bëgguñ ko fi ñu bëgg jege na tali bi ah jege mooy loolu fii daal ñun moo ñu gënal moo ñu gënal ñun luñ munti am daal fii moo ñu ko gënal nañu fi dagal espace boo xamante ne ah danañ ci am école danañ ci am hôpital ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne koñ quartier bi soxla na ko terrain football ak lépp loo xam ne quartier bi soxla na ko war nañ koo mun a am fii nii parce que ñi fi nekkoon ñu jëlee leen fi ñooñu genn wàll gi yëpp ci biir koñ bi fii lañ dëkk kon mënoo fee jëlee ay nit ci lu la neex ba pare nag di dund ak waa quartier ba tamit lu la neex loolu ñun duñ ñun ku ñëw taxaw jàppale ñu ci xeex bi ñu jàppale la ku ñu woon ginnaaw tamit ñu woon la ginnaaw ñun lii nii amuñ ci dara loo xamante ne dañ ciy reculer ci ginnaaw commencé nañ ko dañ koy tokk ba lu ñu ci yàlla may ñu jël foofu loolu laa amoon lu ma ciy wax di tuub di jégalu ñu ngi nuyu di ziar ñëpp remercier ñëpp nag man la Ansou dëgg Ndangaan di doomu Ndangaan doomu Daaru Salaam zone bii nii man fii laa doon liggéey sama place fii la nekkoon si zone bii ñu ne ma ñu ne euh, Macky Sall fi jaarul ne zone bi ni mu mel rafetul ñu yëkkati ñu fi sama place gi station bi ñuy taxaw ne station bi bees bi gars yi di nii sama place foofu la noonu ñu jëlee ñu yëkk yëkkati ñu fi ne ñu ne ah, Macky Sall nu mu fi jaar fii zone bi ni mu mel neexul rafetul mais da ko fi di dañ fiy def ay espace ay place ay ay espace yu ñu fiy def nu nga ay banc public ak yu mel noonu la ñu waxoon lañ fiy def te defuñu fi dara sa guddi kat kat dañ fiy taxaw guddi ñun ay doomu Daaru Salaam lañ amul fenn lu dul daaru salaam ah nañu dimbale pour defar ñu daaru salaam ah nañu dimbale pour defar ñu daaru salaam ñun daaru salaam moo ñu ñor leneen ñoruñu lu dul daaru salaam ñoruñu ah nañu dimbale defar ñu daaru salaam ñun teraanga lépp daaru salaam la dimbale defar ñu daaru salaam li ñuy wax si koñ bi yëpp dara lañ ci gëm politiciens yi fi ne koy li ñuy wax dara lañ ci gëmul nañu defaral daaru salaam wa salaam di rafetlu kàddu yi fi jot a jaar yëpp di xamal ne askan bi tey fii ku fi nekk rek li la fi indi mooy xeexal sa gox te ku wax gox tey ji wax jeunesse tey espèce bi nga xamante ne ne fi la ñu nekk mu bokk ci ñun ñu moom ko buy Daaru Salaam Ndangaan Macky Sall xam ko trop ndax gorom fii la dëkk jabaram Marème Faye Sall fii la dëkk tout pre kon xam na gox bi bu baax donc liñ koy wax ak administration Kaolack yëpp ak fu waay mën a nekk di dànkaafu préfet monsieur le maire di dànkaafu aussi procureur de Kaolack di ko xamal ne ko ndaw daaru salaam yi ndangaan yi pare nañu taxaw pour joxe seen bakkan seen moomeel bi nga xamante ne moom la ñu am ah, il faut que mu leer parce que du wax joo xam ne bu ñuy négocier la dañu toll ci phase boo xam ne bu ñu ko seetaanee du baax ndax lu toll ni daaru salaam tey li muy rentable ci trésor ci xaal ci dugal ci Sénégal li muy dugal ci Kaolack mun naa wax ne koñ la boo xam ne moo yor Kaolack ndax ku wax syndicat wax benn activité commerciale bi fa amul fenn tey ku wax garage Nioro li muy dugal lu toll ni garage di couvrir toute la région de Saloum di couvrir sax l' ndax ku jóge Afrique boo ñëwee di nga jàdd di nga stationné di nga fay donc tey ji li nga xamante ne moo fi xew bailleurs yi nga xam ne ñoo fi ñëw ñu leen di sàcc suuf gi di leen ko jaay ci nak sudul noonu dootuñ ko nangooti parce que mënuñu comprendre tey suñu ginnaaw lii ngeen di gis tey tabax yi nga xam ne dañuy xëy jékki rek ñu zeng ñu xëy jékki ñu yëkkate ñu ne station ci ak koñ boo xamante ne nii tout près station plus de trois stations station yoo xamante ne nii six stations ah loolu mënul nekk yaa ngi dégg loolu du ah dëgg ah tey du yoon ñun taxaw nañ en tout cas képp ku ci dugal xaalisam booy boo nga retiré te xam ne suñu bakkat bi la ñuy jël ndax su toll ni Daaru amul poste de santé ñaata jigéen ñoo fiy dee ndax problème mu matu ci négligence sanitaire mag ñi fi feebar tey bu la sa bopp doon métti wala ngay pikiru tension daaneel la dañ lay fanaanoo di la la defal ba bërset amuñu poste de santé du école primaire du centre de